voilà maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi toog ci jotaay bi eh, ma ciy jiital sëriñ Assane mi nga xam ne moo fi toog te dañuy wax ne xañi féete day tax a ñàkk wërsëg yaakaar naan la ko olof di waxee nekk nit bu baax nag nit bu mu bëgg ndax dama jàpp ne kaso metti na lool te heure bu woowee waa këram li mu nekk ci kaso bi yëpp daf ma daan woo loolu nekk nag loo xam ne lu lu lu mu sa sedd sama xol la ndax dama naan ki ne ci ay jafe-jafe di la fàttaliku. loolu yëg-yëg mënu ko paase di sant tamit sëñ Cheikh Thioro mi nga xam ne yebal na fi délégation boo xam ne Baye Djili ak euh, Pape Ndiaye mi ak Ami Kunta ak ñëpp maa ngi leen di sant bu baax waaye di Lambaay nag ndax moom sama xarit la macha allah ndax jàpp na ma comme Serigne Assane moo tax mu téema di sant ñii ñëpp nga xam ne bokk nañ Pastef ñëw fi ngir jëmmi Ousmane Sonko euh, bis bi nag dama ko defoon daaw mu muy bi Seydina Ousmane di wuyu ci digganteem ak Mame ñaa Niang euh, boobu mu tombeek bisu màggalu Poroxaan ma wàcce woon ay kaamil mu dem ñu renvoyé bis bi yàlla may ma ci ndam tey it ma toogaat màggal si Touba ma ñëw ma ne tant que patriote man war naa mën a tamit sàkku ñaan ndax mbir day toll foo xam ne yàlla rek moo si des te mbiru Ousmane Sonko jamono ji yàlla suñu borom moo si des ma jàpp nag alxuraan mën na lu ne ndax def na lu ne moo tax ma ne est-ce que duñu wàcc ay kaamil ñaanaat ci yàlla dellu ci moom ñaan ko bis bi buñ fi jógee tey yàlla suñu borom defal ñu ci lu gën a kawe suñu njortu muy mu génn ci kaso bi ndax kaso du palaasam ndax ndaw ñi dañ ko yaakaar bàyyi ko xel te Ousmane ko dafa nekk nit boo xam ne moo war a defar Sénégal ki nga xam ne nag war na defar Sénégal ay ndaw di ko xaar jàpp naa ne ñun ñëpp war nañu mën a takku fu waay mën a dugal sa loxo nga dugal ko fa ngir mu génn ñëwaat ci ñun ndax dañuy waajal ay campagne te 2024 ñëw na pour ñu préparer suñuy campagne eh, bi ci topp mooy tamit am na ñoo xam ne eh, chaque jour eh, des fois dañ lay woo Adama ndax jàpp nga ne Ousmane Sonko dina génn ma ne Ousmane Sonko ak génnam ci loxo yàlla la des te mit ki damay jàpp ne ku ne li nga jirek rek loolu ngay góob te Ousmane yàlla suñu borom def na ko ci xooli Sénégal yi ba pare dina mun koo dindi Pastef nekku ci aw kayit bañ koy xotti wala nekkul ci aw kayit bañ koy dindi ci xol la ni ak ci deret loolu nag kenn munu koo tàggale ak nit moo tax jàpp naa ne nag euh, Pastef dañu gën a takkuwaat comme ni ko bàyyi ji li gën a waxee léegi gën a booloowaat ndax mbooloo mooy doole ndax wenn benn bant mën nga koo damm waaw waaye sayu xat mënoo koo tàqale kon bu ñu booloo rek dinañ daaneel yaakaar naa ñi fi nekk euh, Macky Sall nag dama koy wax ne ko man Diop ragaluma te musuma daw te ba tey tey laa gën a takku nekk Pastef te jàpp naa ne li ma def biir Pastef ba egsi fii cooma du ko def de du ma ne nag def naa fi lu fi kenn deful wala wax naa fi lu fi kenn waxul waaye fit yàlla suñu borom may na ma ko te fit boobu nag dama koy wax ne ko ba tey ci laay ànd ak di jàppale Ousmane Sonko ba 2024 fal ko mu dugub ca palais ba incha allah bu ko yàlla dogalee te maa ngi koy ñaanal bis bii ñu def tey muy ay xasaayit ak wàcc fi ay kaamil mu ngi ciy ñaan di ci dagaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala bu ñu fi jógee yàlla na ak coppiku am ndax nag sëtub sëriñ fàllu moo toll nii de te ku ne am nga sëriñ waaye ku jàq sëriñ fàllu nga woo te dama ko daan wax ci samay vidéo ma ne eh, ma ne jàpp sëriñ Assane Mbacke eh, wax ji mën na mën naa ko waxee ne mu rëy waaye damay man ne mën na jàpp maanaam ki nga xam ne mooy fi toogal tey sëriñ Touba ndax sëriñ bu buñ doon séddale tey tubaa mu toll ni ab saamam kon jàpp naa ne suñu ñee Mbàkke la sant ñuy raamal ay ay magam wala ñuy raamal ay ay ay ñeneen wëlbatiku jàpp ko tëj ko ci kaso bi jaay ko doole dama jàpp ni loolu metti na lool kon nañu xoolaat moom fi ñuy teg seen tànk xam ne nit mënul falu ndax askan bi ba toog ci réew mi bëgg boole njabootu Serigne Touba gi wala sëti Serigne Touba yi di leen dugal kaso jàpp naa ne loolu tamit yéenduwul maanaa bi ci topp moom ñi nga xam ne ñu ngi ci kaso yi bari na lool kaso yi fees na rëbës boo fa demee da ngay jooy dem naa fa bis boo xam ne ba ma fa jógee añu ma ndax dafa metti lool sama biir xol ndax dund ga ñuy dund ak xataay ba mu xat dafa metti lool te Macky Sall 2012 bi mu bëggee ñu jox ko réew mi dafa àndoon ak jabaram soloon ay ay ay dàllam ŋàbb ak mer gàddoom Sénégalais yëpp jaayante ba jàppale ko mu toog fi waaye daa mel ne lam ñu waxoon nag daf ñu wax ndaxeem ndaxeeta mbaay waaye nag damay jàpp ne réew mi ay carte mooy fale mooy fole waaye na ñu defoon ba àndoon nag moom 2012 noonu la ñu fas yéene waat gone yooyu ñoo màgg tey fas yéene ànd ak Seydina Ousmane mi nga xam ne ci ngor lañu la ñu tàggat yar ñu ci diine musul sàcc ale réew mi musul fen kon kooku jàpp naa bu ñëwee tàllal ñu loxo bu fekkee ne ay ndaw yu bëgg suñu réew lañ war nañu sacrifier suñu dund dem ànd ak moom ngir 2024 incha allah li ñu préparé muy euh, ay campagne ànd ak moom campagne le ko euh, yàlla suñu borom may ñu ndam ci kattanu yàlla. Adama da wax bi ngay tàmbali wax yi nga naan président Macky Sall man ragaluma ndax kon Adama daa bokk nga xam ne des fois day jot ay menaces yoo xam ne dañu koy tiital ci lim nekk mu arrière wala. bari na ndax euh, benn rek laa ciy ñëw muy bu ñu daggee teewee Touba yi dañuy jël samay photo ñu montage ko dugal ko Facebook ñu ne Adama moo yónnee ko dagg ñu bëri woo ma tëjal wala nga génn dugg Gàmbi ma ne man li ma sacrifié ngir ànd ak Ousmane Sonko ñi tëdd kaso gënuñu ma Ousmane Sonko gënu ma gënu ma ko laa bëgg a wax sax maa ngi koy tuub ne bu gën di am moo ma gën ndax Ousmane Sonko musul sàcc alali réew mi te loolu la ñuy toppee nit usman Sonko toppewuñ ko ak Cheikh toppewuñ ko ak Serigne ndax bu doon dañuy topp Serigne Touba la ñuy topp waaye dañ koy topp ngir ak jub dañ koy topp ngir ak dëggu waaye dañ koy topp ngir bëgg gi mu bëgg réew mi ñun loolu la ñuy toppee Ousmane Sonko kon jàpp naa ne xoqatal aadama taxul aadama daw ndax aadama ña tëdd campinal gënuñu ko te pare naa nag bakkan bii dama koy wax ci samay vidéo ma su fekkee ne sama benn bakkan moo war a sowee Ousmane Sonko maa ngi ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala def naa ko addiyee Ousmane Sonko ngir ma toog palaasam moom mu génn na ci biti ndax damay wax ne sama benn bakkan yàqul dara ci réew mi te Ousmane Sonko benn bakkanam li mu war a sowee moo ëpp fuuf sama benn bakkan bi kon may wax ne yàlla suñu borom bu dee sama benn bakkan moo des pour Ousmane Sonko génn pare naa pour jébbal ko Ousmane Sonko kon loolu ku joxe bakkanam kaso limaale wu ma kon ragalu ma ci xoqatal yi ñu may xoqatal même xaalis bi ñu may tegal tamit damay wax ne di màgg tabaski jub see ay nit woo nañ ma proposé ma 300000 pour ma defal Antoine Diome am vidéo ma waxal ko ne ko man deret ji ma bokk kenn a jënd sama juróom-ñaari maam kon ay 300000 du tax ma jaay sama ngor fa ma ko waxee eggale gu ma ñetti xar am naa ko ci tabaski ay patriote ñoo ko dajale jëndal ma ko benn ci jigéenu sëriñ Assane Mbacke jëmmi Serigne Assane tax na nit jënd am xar jox ma ko ren. ngir jëmmi sëriñ Assane Mbacke mi toog kon lan lay dabu te ma am ngor Ousmane Sonko tax Sénégal gépp xam ma tey man bu ma ñëpp xamee Ousmane Sonko moo tax bu ma nit dee topp Ousmane Sonko moo tax bu ma nit woo di jooy Ousmane moo tax dama naan benn star nag moo am muy Ousmane Sonko kese mooy star benn star nekku fi fii lu fi waay yor rek bay jaay Ousmane Sonko moom da koy maye xam nga lan moo tax mu di ko maye muy bëgg réew mi gëm réew mi war a dimbale ndaw ñi nga xamante ni ëllëg war nañoo mën a toog ci réew mi du fi dund te kenn du leen noot buumu jaam gi moo war a jeex takk war a dagg ndax dañoo sonn kon xale yi nañu gën a takkuwaat surtout ñun jigéen ñi xam na ñun tàmbalee gu ñu bay pare de Pastef day doog a door de Pastef damay wax ne day mel ni tey lañ koy doog si signé ci këyit tey lañ koy doog a préparé kon nañu takkuwaat waajal xam ne Ousmane Sonko fee mu tëdd képp ku pare ne Ousmane Sonko ni Macky Sall da koy bàyyi daf ñuy nax de parewul pour bàyyi ko ñun ñoo mën a may Ousmane Sonko jàmm ñun ñoo mën a tax usmaan Sonko ñëwaat ci société bi ñun ñoo mën a tax Ousmane Sonko mu génn waajal ay campagne am loolu nag doonu lu kenn di wax ndax réew mi dafa mel ne lido ku génn ñu jàpp la ku wax ñu jàpp la waaye nag dama ne wax ju egg dafa ko moom kon yéen Pastef ak koo xam ne bëgg nga Ousmane Sonko wala ngay gëmee Ousmane Sonko wala nga bokk ci parti Pastef nañu gën a jugaat takku ngir Ousmane Sonko génn fee mu ne ndax ñun moo nekk suñu candidat amuñu beneen candidat ñun Sonko rek la ñu topp topp ñu keneen incha allah ok bi jaay dañu wax complété na d' abord euh, Serigne Moustapha Diouf Lambaye wax na fi ay wax yoo xamante ni wax yu am importance la aussi que Baye ju Baye aussi wax na ci beneen angle mais dañuy nuyu sëñ Assane di nuyu euh, sëñ Moustapha Diouf Lambaye di nuyu Baye Jili ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci salle bi d' abord ki nga xamante ne moo taxoon teew fii muy le coordonnateur Cheikh Thioro Mbacké doon jàmbaar euh, di liggéey liggéey bu am importance ci Touba mais aussi. courage yu Serigne Assane Mbacké kenn du ko nettali ci Pastef Touba man li may woote rek lenn rek la mooy ñëpp def benn bant parce que bale boo ko tasaaree tey li nga fi bëgg doo ko am na ñëpp def benn bloc ñu taxawandoo ñu xeexandoo régime bi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk man damay wax souvent sàll Sall gënuñu ci ndey gënuñu ci bàyyi lan moo tax mu bëgg ñu imposer boppam ba ñun ñu doon majorité ci réew mi moom bëgg ñu imposer ba Ousmane Sonko bokk. wala moom wan ñu ki nga xamante ni moom mooy doon président de la république bu Sénégal sànq wax na ko Moustapha Serigne Moustapha Diouf Lambaye am na man benn rek laay déballer chaque jour nee naa leen or bi chaque jour day jóge Sabodala ñu teg ko ci avion mu dem France directement Sénégal du ci am un franc lenn la ci am mooy autorité yi nga xam ñoom ñoo fi nekk di sàcc suñuy milliards ñoom ñooy jëlaat xaalis bi di ko jël ñu leen ci neexal léegi du dem ci poche Sénégal léegi kon rongo ñu baadoo la mooy siin cerey buur loolu nag dama ciy fekk sëñ Assane Mbacké démb wax na ko ci interview am c'est une première fois ma partagé ak moom ci communication ma bëgg nag sénégalais yi bàyyi yenn diabolisation ñu taxaw liggéey pour le Sénégal ku ko xam-xam ni c'est un leader incontestable di jàmbaar ci parti bi kon nag nañu gën a jàppante ñun ñëpp gën a liggéey pour Touba li nga xamante ni Ousmane ko def ko wax mu ne ni ko Touba def gisul beneen dëkk boo xamante ni moom moo ko def Touba révolution fi la ëppee ku ko xam di ko xam ci Serigne Touba Khadim Rasoul donc nag ñun li ñu war mooy bu ñu tiit bu ñu ragal comme dañoo toog dëkk boo xamante ni ku ci nekk booy wax yaa ngi xalaat boo génnee fii ñu jàpp la ragaluñu kaso mais aussi ragaluñu dee parce que dee mi ngi ci bakkan mi ngi ci loxo suñu borom nañu taxaw ñu résister résistance la ñu woote Ousmane Sonko bu mu ñu gën a gore tey foofu la suñu Assane Mbacké mi jugee kaso Serigne Cheikh Thioro Mbacké ñu ngi koy wër Moustapha Diouf Lambaye ñu ngi koy wër avant wër bi ñu ngi te ay milliards di leen jox ba ci mit ñuy gën a tuuti mais mënuñu ko parce que ay gor lañ ko séqal kon maa ngi woo toutes les patriotes du Sénégal plus particulièrement ñi nga xamante ni ñoo nekk au niveau de Touba ñu bokk ndey bokk baay taxaw xeexandoo pour jëli fi résultat bi ñu nekk asalaamaaleykum wa rahmatullah